li ñuy daal ci Bocuse d'Or bi mooy yëkkati cuisine u ak jàppali xale yi nga xam ne ñoom ñooy def kuisine changer seen statut parce que li ci bari jàppewuñu leen ay liggéeykat ñi ci bari dañ naan jànguloo demal def waañ te waañ moom daanaka njàng bu rëy moo ci ne ci waañ mën nga ci génn nekk docteur ci waañ mën na ci génn nekk nutritionniste mën nga nekk yu bari man mii di wax ak yéen sama ambassadeur maa koy faj du dem ci benn docteur. daanaka ci Sénégal dañuy wax ni waañ jigéen la waaye tey àdduna bi dem na ba foo xam ne daanaka mbiru lekk daal ñi ci bari góor ñoo koy def donc maa ngi wax ñëpp nañu bàyyi mbiru xeebaate bi maanaam xeebaate la parce que c'est c'est c'est ça qu'on veut dire statut waañ daal. góor moomu ko jigéen moomu ko ñëpp ko bokk njàng kese la waaw boo xamee carotte nuñ koy toggee góor mënoo xam jigéen mënoo xam te tey évolution bi dafa def de telle sorte que euh, kenn amul jot góor mën na togg jigéen mën na togg. daanu ñoon def ay concours yu bëri chef yu bëri ngeen gis yi ngeen di dégg ay concours ñoo leen may ñu feeñ ñu ci baari ki nekk Élysée ki nekk ki ñuy tuddee Bocuse. moom ci boppam moo njëkk def li nga xam ne émission télévisée ba pare ubi ay brasserie yu bëri ci Lyon jël ay xalé di len yar ndànk-ndànk ci wàññ di len woné nak ba nga xamné ñëpp dañ leen di xam loolu dal lu baax la té itam dana xam nit ñi gëna a xam produit nan lañ koy défé ak fan la am yu bari dal yo xamné dal dinañu dimbali ci walu ci suñu wërgu yaram concours bi dañoo sélectionné ay xale yoo xam ne ci waañ lañu ne waaye ku koy def foog nga am juróomi at yoo xam ne romb nga ko maanaam cinq ans d'expérience euh, dañoo déposé ñoom ñëpp seen i këyit ñu càmbar ko xool ko ak chef Abdallah ak yeneen chef xool lan nga xam ne moom la ñu wone ci kayit yi ba pare ñu tànn tànn nañ nag juróom-ñett yoo xam ne ñoom ñoo war a def concours bi ci ñooñu ñett lañuy jël ki ki ne dina am 1 million ki ci topp dina am 300000 ñeneen ñëpp ku nekk dina am 100000 ki Maroc mu dem defi formation ba pare Sénégal au niveau africain bu Maroc dina dem Lyon pour représenter Sénégal au niveau mondial c'est un championnat comme ni football bi di Coupe d'Afrique coupe du monde ñun tam loolu la def maanaam ki nga sos concours bi ci loolu la ci pour mën le concours gastronomique. c'est le 28 et le 29 février au King Fat Palace le 28 ci def pâtisserie le 29 ci cuisine gastronomie.